nag lakk bi moom moo nekk nii actuellement mais boo xoolee si gannaaw Pàcc Lambaye moom lépp lakk na moom parce que mais boo gisee ci kanam boo xoolee maa ngi see ci kanam mais lakk-lakk bi day ñëw xam nga sapeurs actuellement ñoo ngi si et pour le moment gars yi dañ see mënagul lu bëri parce que amuñ accès pour mën a fay fay lakk-lakk bi pour ñi nga xamante ni am nañ fi ay matutaal yu fi nekk dañu man si ku fi mën a teew daal moo gën a wóor parce que lakk-lakk boo xam ne xamul kañ kañ kañ la kañ la fan la yem moom ba fa amee sa alal moom mu ñëw moom moo gën jéem koo xool. ah lañ fayal. waaye